fii la xewe woon am na ñu wax ne fii la xewe woon te it am na ci loo xam ne ba ko sababoon bokk na ci yooyu loolu ñu waxoon te mooy boole gi ñu ko boole woon ak soldaar yi ñu nekk ci benn néeg ñuy def lépp lu ñuy def ci kanamam tux meeg cigarette meeg sobe soosu yëpp waaye mu muñ ko rek ngir yàlla ak roy noonu nga xam ne ñooy kiraamal kaati bi ni yàlla booleel ba yàlla fayee ko feeñal ci béréb yu lëndëm yi boobu jamono lool nga xam ne léegi lañ fi am jumaa bi tedd ji nga xam ne dafa bokk ci meññetum jihaadi sëriñ bi euh, ay ay taalibe ne fi ay jullit ne fi waaye booba sëriñ bi bi muy décliné Gabon waxin moom waxee rek te nga xam ne booba Gabon Gabon lu doyoon waar la ba mu wax ba ne xattaa wasoltu idal jë ñu digloo rek bañ bañ na leen tiire leen rek nañ tiireendoo ñu dégg nga ñu mat fukk ak ñaar ak ki nga xam ne moo leen di commandé muy fukk ak ñett ba ñu ko defee yàlla sottalul seen pexe yooyee lañ bëggoon amuñu ko sëriñ bi moom delluwaat ci ab liggéeyam ba mu bind ci xalimaam wax ne wahaba lil wahaabu fis sulaasa maa yuxjilu l ashrata wa salaasa yàlla mi nga xam ne mooy mayaakon bi may na ma ci bisu talaata boobu ñu doon defee pexe moom yi secret boo xam ne day gàcceel fukk yi ak ñett loolee kon di loo xam ne fii la xewoon waxaat na koy it ci xasida ak waqaan yi wax ne ñoom ñi nga xam ne ñoo ma doon jéem a fexeel yàlla miy notaakon bi moo ma musal ki seeni pexe te seen xeej ya ak seen kanu ya war na leen ajaarani alqahaaru min jumlati al ida wa xaanathumu armaahuhum wal madaafiu xasida yu bari boo ko delloo dañ ci fekk luy luy firnde loolu ba ci rum sukkur la si bil kaafi wan nuuni wax na ko ci ci ay waxin yu wuute maanaam wane na daal moom maanaam dafa daal di tuubal yàlla delluwaat ci yàlla bi bi nga xamee ne ñoom ñoom noonu yooyu ñu ngi ko maanaam jóg jóg jublu ko bil madaafi turran wasakaakiini yor ay ay ay ay ay kano ak ay ak ay ak ay paaka yoo xam ne seen yéene moo doon euh, euh, maanaam euh, faat bakkanam kon yooyu ci xew-xew yi nga xam ne xewe na fii la bokk am na yeneen i xew-xew yeer mi danañ koy nettali ne ne fii la xewe mooy ak ak kàmb guñ ko gasaloon goo xam ne dañ caa taal sawara def ko ak maanaam dëgg sërëx wan ko ne ko rek fii daal mooy maanaam fi nga war a jaar woolu ko bi mu ñëwee ba ba jub kàmb gi naa Jibril mi nga xam ne mësta tàggoog moom ci tukki bi ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom itam da ko waxoon ne ko li ma la mën a jàppalee ci tukki bi mooy bépp nattu buy bëgg ñëw bu nekk naa la ko wax waaye foofu laa yem ak yow wax na ko ne ko foofu nga jëm am na pexem noonu mu fa nekk waaye buy maanaam bul sikki sàkka demal rek bi mu ñëwee ba agsi daal di surux ci biir kàmb gi euh, sëñ Blaat nettu la ñu kàmb gi hmm. te jàpp naa ne sëñ Blaat sëñ am satu moo koy nett li sëñ am satu ki sëñ bi lay jëlee sëñ bi ci boppam itam bind na loo xam ne itam day firndeel loolu te mooy fi mu waxee ne radama rabbi maa aduwiya xafar li darari wasaana nii am man kafar sëñ Blaat xamal nañu ne kàmb nekk na fa ab diir al malaul aala sax ñi mu àndaloon ñëw nañ sàkku ndigal pour génn ko fa mu gàntal leen amul lu may jëmm jàpp ci ay mbagam daal di koy génne ne ko demal gis ab liggéey ba mu gessoo gis muy soxna bu sa ndeyam loolu sëñ Blaat nett na ko ñëpp dégg ko euh, beneen bi leneen leneen li ci des mooy naaru gànnaar bi nga xam ne mooy bind xawaarixi sëriñ bi ci géej gi muy Abdoulaye Salim wax na ko ne naarun te ajjaju naarun taajjaju hal yunji tariixa bihi illa munajji xalilillahi min naari bokk na ci pexe yi ñu defal sëñ bi ci géej gi sawara wuñ ko taaral ci kàmb dugal ko ci biir mu ne kenn nag koo ko fa xettali ku dul ko xettali woon xalilullahi ibrahim ca sawara wa muy qul naaru koon kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim loolu kon fii la xew woon kon daal sëñ bi ci tënk yooyu mooy yi nga xam ne ci suñu gëstu bu gàtt jot nañ koo am ci ne xew-xew la yu xew fii ci montagne sainte